Sénégal Plus. man doma da kuma ko togal din ko lek. fi ma ko teg samay gu guu yi bokkuñu nag xam nga nokkas yi duñu ben. Wa lolu ni ni koy xam ni ma xam-xam nañ ko. <laughs> ki kim ma bëgg mu may woyé Ndeye Penda Ndiaye muy sama borom kër bu ma ko wooyee rek damay contane du mom dong mais mom bu ma nee Ndeye Penda Ndiaye damay contane <laughs> bàyyi ma dëkk jaxaaw. <laughs> waye ma dëkk jaxaara wa Grand Thiès may dem di leen séti rek naa dégg sama papa ak sama yaay rek di leen dem di leen may benn une heure de temps mais bàyyi ma dëkk jaxaar yii taasu waye moom moo ma gënal ñaar yépp sax neex na ne ma bëgg fekk te mënuma dara way mënuma ko mais damay damay jéem ñaar yépp daal bëgg naa ko taasu waa taasu bëgg mën naa ko naa la jox benn bi rek bi ñëpp mi bëjëg na fuur bi waaw bëjëg na fuur ndey njaay def na la mu daan def bëjëg na kafe tuba baa moo ma gënal du taya naan eh, ataaya génn liggéey moo ma gënal tëdd Thiès mais sama de kana fala juddu fala yero fala màggee sama papa fala ne sama yaay sama mbok fépp fof lañ ne Dakar bàyyi may ñew rek di dem olof Njaay dani boy bëgg da ngay bëgg ki la bëgg bo fi baye ki la bëgg dem ci ki nga bëgg bis dina ñew koku dem ci ki mu bëgg bàyyi ma tànn rek ma bëgg togg ba mu neex añ ak reer dëggantaan lu may tëbal <laughs> xiif du tëbal ci chaque jour da ngay xiif añ ak reer du tëbal non man nag ndékkee ma gën a si ñaar yooyu yëpp benn ndax du ma añ des fois du ma am temps wu reer bi du ma lekk guddi réellement nana am sama cereeg meew rek ñaar yooyu yëpp benn gënaluma ma ci dibiteri ah aw ah, yu saf yi rek ñuy def yu saf xuuxal soble bi nee teg ko ne moutarde bi na wex di di kii xam nga nga koy lekk sa bëdi di jooy yooyu daal moom ma si neex jullit laa di mënuma jël monogamie bàyyi ma jël polygamie rek polygame mi ngi neex waaw mi ngi neex bu baax comme ni nga koy seetaanee rek chaque jour ba son ak ay jabaram ma sonal ko rek man yooyu man la yu bon yooyu yëpp man la man maa sëy ñi si des sëyuñu ah sëy tukkan ndax man maa toppatoo sama jëkkër maa xamal lu mu xamul woon yëpp loolooy sëy gérer sa jëkkër xamal ko lu mu xamul woon yóbbu ko fu mu demul woon noonu na fasa ñeenteel ndax ñeenteel amul jot du toog du du du yàq day liggéey amul jot nañ ko libéré rek mu dem ñun ñu des non nañu nañu wàññil ay bi rek bu defee ñun suñu ay di gën a gaaw xam nga boo amee ñeenti jabar boo toogee di nga toog huit jours presque doo mu mat di ñëwaat wala six jours léegi moom bu demee dañuy gën a gaawal rek xam ne boo toogee 4 jours rek dangay ngay jotaat sa jëkkër man dama bëgg comédie waaw man moom nay neex nit ñi di ree ba kekku man bëgguma nit ñi di di mer di stressé man naa leen reeloo ba ñu xël fa ñëw di daan di jugaat looloo ma dàqal man valeur beneen nday njaay lañu gis Ndeye Ndiaye buy làkk français Ndeye Ndiaye buy buy kii yaam a gën a xam bu nekkul ci comédie dara beneen jeu wu Ndeye Ndiaye la ñu gis moo ma fuuf ndax loolu dañoo indiwaat leneen ci man yokkaat leneen ci man. improviser boo coupé da rek mais rek liggéey bi di gën a tar yow nga ciy ne di jokko maa di jokko leen rek Assane <laughs> Gueye non duñ xaar fa këtti këtti yow yaa ma gën a xam kël sa bandi baal ma jël Alassane Gueye mu cool mu doux ah, mu mu mu moo ma gën a. Ah, parce que xam nga si ngay gën a mën a moomee sa bopp tama dama bëgg di moom sama bopp tout le temps bëgguma dara di ma téye xam nga rek boo solee talon da ngay xaw kii tuuti. <laughs> ah man pour man damaa timide ñox ñu bari loolu la wax mais nag entre samay copine ak yooyu damay waxtaan waaw loolu la nit di wax de mais boo bu caméra tàkku dara tàkku kañ looy wax. li li li kii rek l'essentiel rek nga war a wax di waxtaan ak say nit ñu ngi ko sékkal moom di ko mais xam nga mënoo nekk caméra fay nga ne di wax di wax di wax di mel ni kuy jouer sama mbokk ndax chaque jour ñoom laay gis man samay mbokk man lu ma xew la ñoom laay gis <laughs> buñ ma ci ndax sama làmmiñ moom laay wax di fayeeku samay bët mënuma mënumaa toog toog lu ma gis ki may waxal loolu normal bàyyi rek may ma yor ñaar yépp or xam nga mën nga ko bañ a bañ a takk mais parfois tamit waroon mënoo du romb nit ñi di leen xeer xeeñ vinaigre nañ waxante dëgg baal ñu génn rek ak ak parfum immature <laughs> ah waay comme que immature lañ nit ñi di wax immature laa laa bëgg a doon ñu cap di ree rek di kii ma boo maturé lu bari doo ci dugg da ngay mel ni yaa ma gën a xam. Euh, loolu nag mooy sama cat tuuti nag mais maa ngi koy maa ngi koy maa ngi maa ngi ciy dox maa ngi ciy wax pour di ñëw euh, dinaa tardé tuuti même bu dee cinq minutes sax dama koy tardé. mais bàyyi ñu jox ma xaalis rek may régler problème yi xam nga bëgguma toog sama yaay di ma ñaan ma ni ko aw ma wala sama papa di ma laaj man ni ko aw ma xaalis moo ma gënal téléphone bi fuuf. ba bañ a am ba bañ am buzz moo ma gënal ma am buzz bu bon non non man bu ma demee bay am buzz kañ na doon lu normal loo xam ne lu baax la lu liggéey bu rafet laa ko liggéey ba am ci buzz moo ma gënal may am buzz bu bon normalul sax na foo xam ne moom buñ fa yeggee man ak yow mënatumaa continuer que damay tourner beneen page balaa nuru nelaw lay bañ man neena teud mom guddigi rek te guddigi sax bu liggey amé dëggantaan duma ma nelaw na liggey ba mu jeex ma doga dem teud taal lool taal mbiru taal sax dafa baaxul bàyyi rek ñuy fay mom nay sedd rek ah, capricieux fi rangé def bu bu bu ëpp mom baaxul nga amé caprice sax ma ci coaché dila ci recadré ba nga normal moma gënal nga na nak bo fiiree lu ne mën nga ko def kër gi mbedd mi kañ moom loo fay def bu dee liggéey woo demoo demoo fenn kañ mbedd mi waroo faa dem fenn demal sa kër toog réalité bi moo ma dàqal si neex na mais réalité lépp luy dëgg rek dëgg mooy lépp man day yaay naturel laa nii ma mel moom laa mel ah mais nit ñi xam nga tamit kenn moomu leen mais man xam naa ne man xam naa ne man du ma faire genre c'est bon lépp na am lepp crudité bu saf am crevette am lepp limon bëjëg bi na tegee ne le suul bi waxe no nga dag sa limon bu mak tiir bi tamit bu ko faté waaw lakk jëndi nak mo ne non kanam caméra man kañ ñama caméra bi tim rek ñuy wax <laughs> si festival de Cannes nak mom la nit ñi di rêvé nag gars ma dem Cannes rek laal Cannes dox ci tapis rouge bi kaan bi laay reef neex la mais bàyyi ma reefe kaan rek loolu tuur la yow it day njaay mu dem kaan rek loolu da koy toj kii laa laay jël euh, kanamu caméra ndax li ma mën a jox si caméra bi mënuma ko jox ginnaaw ndax moom dafa timide li ma mën a jox li ñu mën a joué maa ngi moom toog di ko diwoo mu ne ko ci ginnaaw bi dëgg la ne suñuy waxtaan nag day neex moom dañuy joxante mais li ma mën a jox si caméra bi mu ginnaaw kanam caméra mënuma ko jox si ginnaaw <laughs> non personne ak personnage bokkul personnage bi moo laaj loolu rek mais bu ñu jugee ci personnage bi suñu personne la ñu dugg nekk suñu jekk cool du wax <laughs> du sëggi xool nit oh, oh, oh, kontaan naa nag franchement kontaan naa. taf taf taf.